iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina was-siddiqina was-shuhada أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان نحييكم جميعا بتحية أهل الجنة في الجنة أقول لكم من بعد افتتاح قولي بحمد ذي الطول سديد الخول asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi ñuy déglu ci seen bu tedd bu sell bi ñuy wax Thiam Sono TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare te di leen baalu xàq tey baal ñëpp ak tey tabaraka wa taala yal nañu yàlla boole jéggal tabaarakallahu di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi ak ndokkeel yi ak ya aju yëpp borom seen bi nga xam ni moo ñu may occasion bi muy alxaaji Mouhamadunil Mansour Thiam nga xam ni ñu ngi ciy nab nabek mbokk jullit yi tey siiru maam Cheikh Seydul Xaaji Malik tabarakallahu seen Mansour ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax balaa attaana salilul xaaj zul man huwa min mawlaahu Mansour tabarakallahu ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar waaye di nuyu fa tabarakallahu sunu mbokkum daara di sunu xarit di boroom xam-xam tabarakallahu bu am solo ci diina ji ak ci tariixa bi mooy ustaaz alxaaji Mouhamed Diouf tabarakallahu ñu di ko nuyu di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala lépp lu waay di wut ci géewu yonent bi yàlla na am bi barakati sayyidil wujud tabarakallahu boole ci di jël sunu nuyoo bu tedd bu sell def ko ci morso bu weex tàll def ci parfo moo xam miski la moo xam uut moo xam bu mën a doon ñu teg ko ci loxol sang bu tedd bu sell ba huwa Serif Ibrahima Haydara Atijaani mu tegal ñu ko ci loxol xalifa bu tedd ba ca Tiwaawun muy Serigne Babacar Mansour di sunu maam di sunu wayjur di sunu lépp tabarakallahu ginnaaw nuyoo yi ak ziyaar yi jëm ci ñëpp tabaarakallaahu ñu dugg ci taysiiru maam Cheikh Seydul Xaaji Malik dañu daan def ñetti bayit yi ñu am bu nu ko firee ba noppi ñu delluwaat gannaaw ya ca aju ci wàllu xaqiqa ak wàllu sirru ak ya ca aju yëpp fa tabaarakallaahu ñu indil ko mbokk jullit yi moo tax ñaari bayit yi di dem ba dix-sept minutes ndax yañ cay jëli di indi di wane si mbindub Seydul Haaji Malik tabarakallahu sell gi mu sell ak tedd gi mu tedd ak yi mu ëmb tabarakallahu e, démba ñoo ngi jeexale woon alal muqaatabi wasjud waqtarib karaban salli wa sallim salaaman rabbiyallahu waxoon nañ leen démb alal muqaatab mooy ki yàlla waxantal yàlla wax ak moom wasjud waqtarib waaye yàlla wax ak moom xadratul ilahi ba mu fa ñëwee ci laylatul isra wal miraaj sëriñ Babacar Sy feelu baayam foofu ne yàlla wax nabi mukalliman bi jadiril xamdi baari ina mazaqa ba fatra badahu raahu muy basarja tabarakallahu waaye kooku mooy ki nga xamante Eh, yàlla ko waxoon boo sujootee jege ma alaaji bu saaxu nee na nekk yàlla li mu wax yonante bi li mu bëgg mooy ñëpp a waaf mu ne parce que yàlla bu waxee yonante bi ni sa jëf bi boo ko tegee ci suuf gën maa jege te yàlla ñu gën koo yaakaaree ci kaw na ne loolay ne ñëpp a waaf man rek maa fi ne tabaarakallaahu karaman ja nekk mooy dellu ca akrim bihi akrim bihi akrim bihi akrim bi hadha al abdi inda rabbihi li tax yàlla woo ko rayu ko moom yonent bi deewul yàlla jëlewu ko fi mais def ko éviter booba ba léegi bi fi jógee ba ñu rob ko ba léegi ñu tuddee ko rob ca fa mu tëdd ñun ñoo ko tuddee rob ca fa mu tëdd waaye yàlla nga ko tuddee ki ma éviter pour teral ko wa ama uhdi a muhtazan ala jalalin daahu fi safarin mawlaahu lil lil karami yàlla def ko woo pour teral ko ñun nag ñoo ko tuddee dee mais yonent bi moo tax ba léegi moo ngi fi tabaarakallaahu moo tax alaaji Abdu ne akrim bi ñeenti akrim yi yëpp bokkuñu teral leen nabi ca ba mu juddoo akrim bi ngeen teral ko ci wootem bii ngeen bañ koo saboote akrim bi madinatu munawwara ñoo ko teeru teral ko muy ñetti akrim ya akrim bi haazal abdi inda rabbihi mooy teraanga ba ko yàlla defal ca laylatul isra wal mi'raj waaye ba mu delsee yàlla jëlati ko indi ko ci wetam boobu ba léegi nag moo nga ca teraanga ya demul fen moo ngi fi nekk tabarakallahu foofu lañu ñu woon démb kon salli wa sallim julli ak sëlmal salaaman akub sëlmal boo xamante ni borom dafay dem doxi ci ay soxlam ñëwaat tàmbaliwaat rabbi yow sunu borom yaa allahu yow borom sunu tey nag ñu nar a tàmbal ak yéen loolu laytaay la woon salli ala lawxika almaxfuuzi ashrafi min kulli alxalaiqi ya rahmanu yallahu foofu la ñu nar a jëm ak mbokk jullit ñi tey lawxil mahfuuz huwa sayiduna muhammad waaw mooy yonent bi foofu yonent bi la ko yàlla tuddee kon salli julli leen yéen mbokk julit ñi ala lawxika ci ki nga xamante ni julli nañu ala lawxika ci ki nga xamante ni mooy sa alibaba nga bind ca alquranul karim benn satar ak desit ci suufam almahfuz lawxika almahfuz al ashrafi ka nga xamante ni mooy aji tedd mooy aji sell sarrafaka alrahmanu bi tasrifi jaddika tabarakallahu Eh, mooy ki nga xamante ne teddal nga ko ci biir ak ci biti muy sayiduna muhammad min kullil xalaayiqi tukkee ci bépp mbindeef nekk bàyyiwuñu kenn koo fi gis nabee ko gën a tedd koo fi gis nabee ko ëpp daraja koo fi gis lu mu yaakaar tabaarakallahu ak lu mën a doon ci barke nabi la ko amee yaa rahmaanu yow yàlla mi nga xamante ni yaa yore yërëmande ya allahu yow mi nga xamante ni yaay ismuzaat tilkal amaanatu ëllëg yowmal qiyaam la sayidul xaaji malik di joxañ tilka waaw moo tax e, maa ngi dégg e, sama mbokkum daara ju baax ja sunu magum daara di sunu kilifa yal na yàlla leeral bàmmeelam alxaaji Habib sar muy wax wax ju am solo mu ne est-ce que dégg-dégg alquran ñëw la Cheikh Mouhamed Diouf Habib Sarr nee na que yàlla li mu utiliser ku ko liir te dégg grammaire da nga naan déggi déggi alquran ñëwul copier bi moo ñëw mu parce que yàlla ba mu ne alif lam mim dafa ne zalika al kitab waxul hazihi al kitab ismu isaara lil baid waaw zalika al kitab boobu la téere mu ne ban la bu waxoon hazihi al ñu yëg ni ñu yore waaye zalika al muy ismu isaara lil baid laa lil xarib tabarakallahu kon su ko tilkal amaanatu boobu la kóolute ak sécurité ñuy yaakaare ci yonent bi duñ ko yaakaaree fii tilka fële la ca yowmal qiyaam foofu lañ ko yaakaare ci nabi loola nag bu amee ba nabi jóg taxaw nar ñoo ram mu tag fii doy nañu sëg taluñu leneen waaw man mooy sang ba nga xamante ni nu nekk na lahoo ñeel ko mu balligan muy aji jotale mbindeef fii yërëmandam bi mu am mu ballixan mbindeef yi jël lañu am ci ñaawteef teg ko ci loxoom pour mu narko koo layoog yàlla ya amanu te dafa am sécurité nekk loola nekk yëg nañ ni al insa la luy jot la ci loxoom moom sayiduna muhammad waaw sécurité la boo xamante ni yëg nañ ni ndénkaane la boo xamante ni ki nga koy dénk dana jot ci moom al insa li yaa allahu yow borom sama bi bind sayiduna muhammad kon yow yàlla daal yonent boobu ñuy tudd sànq ba léegi laa taxriman na bu ñu xañ mukk waaw yow yàlla daal ñoo ngi lay ñaan bul def ci ñun lu tax mu ñuy xañ ëllëg ñu bañ a gis yonent bi waaw dimbalee ñu ko rek laa taxriman na ilaahi ilaahi yow sama borom al ma bis ba nga xamante ni ru'yatahu gis yonent bi fa lay neexee waaw Euh, Seydul Haaji Malik am na fu mu ko léeboo léebu nit ñi rek bàyyi noonu waaye moom tout le temps moo nga defa yonent léebu nit ñi rek bàyyi noonu waaw fa waa kabidan min xubbi man lam ulaaqiqi wa bahrus tiyaahi lil huyaami yahuudu loolu léebu la rek Serigne Mohamed Diouf ndeysaan Seydi Haaji Malik kenn du moom waaw fa waa kabidan sama góor ga nee na boo koy firi da nga naan woo naa mettitu presse sama ne loolay baatu olof bi firi woo naa mettitu presse sama min xubbi tukkee ci mbëggeel boo xamante ni bëgg koo xamante ni lam mukk ulaa xiixii ngay dejek moom ci kaw suuf a ah, loolu waxin la rek waaye moom mi ko wax moo ko yonent bi dañu tekk li nit ñi nag da ngay wax ak ñoom ci lu ñu mën a dégg lam ulaaqihi wa baxaru stiyaaxi na géejub cofeel lil huyaami ñeel ki am mbëggeelam yahuulu dalay gëlëm la waaw da ngay windeelu rek di gëlëm rek te doo xam fi nga jëm waaw moo tax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane al Maktoum nee na olof am na baat boo xam def ca juum Mohammed mu ne olof bu ne boo demee ba xamatoo fi nga jëm da ngay dellu fa nga jóge seriñ Cheikh ne li la réeral ba xamatoo fi nga jëm moo lay réeral ba doo xamante fi nga jóge <laughs> mu ne waxama ye juulu rek ngay dase taxaw rek di windeelu waaw mu ne boobu daal neex na dégg waaye delluwaat fa nga jóge mu ne lala xaañ ba mënuloo xam fa nga jëm moo lay téye ba doo mën a xamati fa nga fa nga jóge tabaarakallaahu moo tax e, amaana boobu yow yàlla daal ñoo ngi lay ñaan ñoo ngi lay ñaan falaa bul suuyal mukk man koo xamante ni yar juuka yaakaar na la yow yàlla te yaakaar ba mu jaaree ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam acca ñu delluwaat ci ginnaaw ya ca aju ci xaqiqa ak ci secret ñoo indil ko mbokk jullit ñi loolay pirib ñaari ñetti bayit ya salli yal nañu li jullil salli jullil allahuma sax góor sama góor ga nee na commencement salli yëpp allahuma la ca Maodo naroon a def mais def ko xasfu parce que bu ca duggoon itam way wa day ëpp misra u bu njëkk ba day ëpp waaw moo tax mu def salli rek bàyyi noonu allahuma julli leen ndax kenn mënta julli ci yonante bi moo tax ma dégg sama sang bu tedd ba Serif Ibrahim mu ne bu ma gisee ndaw luy ubbi waxtaanam naan usalli wa usallimu nee na dama lay yërëm ndax da mën na la jural gàtt fan mu ne ndax julli ci yonante bi yàllaa yàllaa ñuy jullil ci yonante bi waaye mënuñoo julli ci moom tuuti nañ ca waaw tuuti nañ ca mooy li alxaaji mbay doon na mbay defoon taxaw ci tànta xaacu ne yee njool màkk yaa leen gën benn góor jóg taxaw eh, maa ngi ko déggee ci imam Moussa Gueye benn góor jóg taxaw ne ko waa alxaaji mbay doon na mbay a ah, lii nga wax day dama cee gis ni danga cee génnee sa bopp da nga ni yaa leen gën nga bàyyi sa bopp tee ngaa wayaat way bi nga ne yee njool màkk yaa ñu gën nga duggaale ci géew gi góor gi ne tekk taxaw imaam Moussa Gueye ne ba xër ñit taxaw ne ko mbay doon de juumuloo moo déggul fi ngay waxe waaye juumuloo mbay doon de jottali imaam Moussa Gueye rajo ba imaam Moussa ne boo déggee alxaaji mbay doon de li muy wax moom def ko dégg njool màkk yaa leen Moustapha gënantewul ak ñun cent vingt quatre mille prophètes yi lay gënantel moo tax mu ne yaa leen waaw ñoom ñoom cent vingt quatre mille prophètes yi mu ne ñun tuuti nañu ak gënalante ak yonante bi <laughs> wallaay ndeysaan cay mag ñi dégg rek am solo waaw dégg rek am solo moo tax laa lawxikal mahfuz nga julli caka nga xamante ni mooy aliba bi peek lépp aliba bi nga xamante ni yàlla ca la def alquranul karim peegee ko fa lépp min ibtidaa baqara ila intihaa in naas fa ko yàlla def benn satar la rek ak dasit kooko nekk alquran jooju la jël yónni ko ci sayiduna muhammad comme yonante bi alxaqu huwa allah allahu huwa alxaqu boobu mooy ñëwaat ci moom yonent bi mooy lawxul mahfuz lawxul mahfuz mooy yonent bi sotti ci ak def ci la waaw loolu Cheikh Seydul Haaji Malik moo tax xam na lii mu wax bu baax a baax fa tabaarakallaahu yonent bi ëpp na loolu waaw al ashrafi mooy ka nga xamante ni tedd na sell na moom sayiduna muhammad sarrafakallaahu waaw yàllaa la teddal yow sayiduna muhammad waaw yàllaa ko teddal melal ko nii mu mel teddaay nekk nit ku tedd boo ko gisee nekk ci yin koy xame ci jëfinam lay feeñe waaye du doon ci waxinam waaw af ala tafdil wallahi ashraf waaw tabarakallahu moo tax yonent bi ku tedd la fa tabarakallahu bàyyiwul kenn nekk gën tedd ñëpp nekk min kullil xalaayiqi ci mboolam mbindeef la sayidul haaji malik wax koo ci gis min kulli wasfin hamidin xaada af ala tafdil kooko nag rajaul baraya kañ yow ma musdahabi waaw moom la af ala tafdil ba ngoog Serigne Mohammed ne yàlla fay la tabarakallahu af ala tafdil ba ngoog xoolal gis nga min kulli wasfin xoolal mboolam looy xalaat ci melo te nit di ci baaxee min kulli wasfin xamidin bu nit ki am ba ñëpp di ko ko sante ngir rafet ak mbaax loola maa ngi lay yëgal ni man Maodo xaasa jël na af ala tafdil gën ji la gën ba gëne ba noppi la ca gën la yàlla sédde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw la yàlla sédde yonent bi af ala tafdil ñu ne Maodo kookay kan ki ngay waxal xamuñu ko mu ne raja u baraya ah waaw kookoy yaakaaru mbindeef yi waaw ca kañ ëllëg yow qiyaam tabaarakallaahu moo tax min kullil xalaayiqi ci mboolam mbindeef yi nekk yaa rahmaanu yow yàlla mi amee yërëmande suuf ci mboolam mbindeef yi moo xam jullit la ak ku doonul moo tax maa ngi koy wax dembani boo jàngee fatiha arrahman rahim ba ca basmala ak ba ca biir alhamdu bokkuñu piri waaw bee ca biir basmala waxoon naa la démb ni yàlla dafa nekk ci nekkam te nekkalul dara muy préparé nekk la muy yërëmee mbindee fi ëllëg bu leen nekkalee ak la mu leen di yërëmee bu leen fi jëlee moo tax arrahman rahim ba ca basmala booba lay firi waaye ba mu duggee alhamdu rek mbindeef am na léegi moo tax sant am ba sant amee nag arrahman rahim doora am ci ci kaw ñu muy tege te mooy mbindeef yi ndax yërëmande pour mbindeef la ak lu dul mbindeef ba mu amalee dara rek la indi rahman rahim ja ja ca kaw amal ko mbindeef yi mais ba ca kaw moo gën a foor ba ba ca biir alhamdu waaw moo tax loolu tabarakallahu e, tilkal amaanatu booba la kóolute wala tilkal amanatu booba la sécurité tilkal amanatu loole ñuy yaakaar ci yonant bi ëllëg yowmal qiyaam tax fii dana doy sëkk sëkk sëkk man koo xamante ni takkuunu nekk na lahu ko mu balliran mu koy jottali ci loxol ki jara jottali mooy sayiduna muhammad waaw sama góor ga nee na mu balliran bi danga naan yàlla mi nga xamante ni moo defar nabi ba muy xëcc ku ko sopp mu taf ko ci boppam mu defaraat nabi mu mel na mu war a mel ba mbindeef bu ko gis la ca ëpp balaa mu lay xëcc nga agsi moom ngir cofeel mu balliran mu jotal la ci boppam ya amanu ànd ak sécurité ali insali ci jot googu ngay jot ci jëmm sayiduna muhammad agsi ki moom tafu ci jëmmam moo tax nga dégg sunu waykat bu tedd ba alxaaj Mohamed Diop Abdoul Aziz Mbaye keroog ca laylatul isra wal mi'raj mu ne nabi jege na boromam ni poosub mbubb waaw ah, loola nag jege fa la yem <laughs> jege fa la yem tabaarakallaahu béytu ba yow yàlla bu ñu xañ mu yow sunu borom a ah, jug loolu nar naa neex de gis yonent bi ëllëg yowmal xiyaam laa ilaha illallah yaay waay yow yàlla loolay lépp laa taxriman na góor gi nee na laa taxriman na bi doo ko delloo ci yàlla de mel ni yàlla def fi toogee pour xaj nit gis yonent bi ëllëg mu ne da koy delloo ci sa bopp laa taxriman na yow yàlla yàlla boo ñu xiir lu ñuy génnee ci lislaam ba duñu gis nabi ëllëg <laughs> mu ne boobu moo jekk waaye nee na boo ne laa taxriman na yow yàlla bu ñu xañ mu ne déedéet ku ko bëgg a gis rek waa amilu saalixaati fii ci àdduna ngay jëf-jëf yiw di sellal jëf ji ndax man amila saalixan fali boppam wa man asaa fali boppam wa ma rabbuka bi dallamin lil abid waaw loola nekk fa tabaarakallaahu ki ca taxaw ba na nga war a mel ci yàlla yëpp nga mel ko fii ci àdduna gis yonent bi ëllëg fa tabaarakallaahu liggéey nga ko fii ci àdduna door a àgg yowmal qiyaam waaw ilaahi yow sunu borom al yowma ca bis ba nga xamante ni gis nabi ban na yàlla bu mu sooyee ci ñun yàlla bu mu sooyee ci ñun yow yàlla man képp ko xamante ni yar juuka yaakaar na la ba jaamu la yow yàlla man képp koo xamante ni yar juuka yaakaar na la yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa allahu yow yàlla may ñu loolu waaw yow yàlla may ñu loolu fa tabarakallahu subhanahu wa taala loolu daal ñoo la koy ñaan nga may ñu ko mbokk jullit ñi ñetti bayt yangoog tabarakallahu e ñu doon ko waxtaan ak mbokk jullit ñi fii ci seen bu tedd bi di Thiam Sono TV ñetti bayt yangoog yàlla nañ ko yàlla déggaloo bi barakati sayidil wujud wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu